jajari jajari jaari papan koo xam dem na 2 ans gisoo ko tegoo ko bët mu ñew indi la dom bu goor amo loy def lu diko diko fenal wala sa yaram bi nga tatouage fu nek wala fi nga bënd fu ne nga bënd fa yow lan la sama doom nga ko def ah yaa do doon wax dëgg nag sama doom nga iya, ko mën a jur déedéet waxoo dëgg lii dëgg seen xol bi ko xëtt mooy kii mooy bay samay rek ma fi ngir bor bi nga leen war a fay gis nga naqar bi leen sa jabar doon teg keneen ak keneen di leen ko doon teg moom laa lay tegaat yow nga xam na la mettee woon ci sama xol bi